dana loru ndax ñàkk soow mu nàmp te mu ne gisul kum ko fayal mu di ko nàmpal mbaa am na pay gi waaye xale bi ci boppam moo nanguwul kenn nàmpal ko ku may yaayam waaw su boobaa moom mi yaayam mën naa bañ woor waaye nag day lele lele gi jëfewut daañu ko wax léegi du tee mu fay itam nag bis yooyu wa kazalika naka noonu a cheikhu góor ga alxarimu ngay aji màggat yut yi dana lele ita aftara ndeem dog na yéena koo xam daa màggata màggat ba tee mën a woor nga xam ne yaakaarut a mën a woor li ko desee ci ak dund ndax ku màggat kooku ba tey koor gi wàcc na ko waaye bis bu nekk na ko leele rek leele bi jëfewut moom si jëfe am moom la mën koo xam ne farata sàggan na fii qadaay ramadaana ci fay ramadaan xataa daxalu ba dugg xale ci moom ramadaanu ramadaan aaxaru janeen ba tey nee na boo amee bor ci koor gii nga sàggan ci fay ko ba beneen weeru koor ñëwaat te ba nga tolloo ci baraxlu wa mënoon nga caa fay ndax tukki woo ci wërëbu woo ja waaye nga sàggan rek ba beneen baraxlu ñëwaat di fayoo kooku nee na faygat lu wàcc ba tey faaw te bu boobaa da nga ci boole alamaan bi ñu lay bëgg a gi lelee gi ko jafe lool mu nekk nii wal itxaamu lelee fii haza ci lii kullihi lépp mudd menn mudd lay doon si bépp bis yàq bii ko fay waaw nee na bu la nee war ngaa lelee mooy bis bu ne rek nga jox ab liibar waaw bis bu ne rek nga jox ab liibar loolu mooy lelee gi na fan ya toll noonu la liibar ya toll fa tolloon ci di wax naa aw yustahabu def na sopp li saa yi mi ñel aji woor kaffu lisaanihi fekk làmmiñam wax maanaam soo wooree sopp nañu nga tey sew làmmiñ bañ ci wax dara lu amul tuyaaba moo tax jiilu xabaa ima ak gaawe fay la nga xam ne fii jimmati yi nekk na ci baatam mën a saw mi ci koor ga nee na sopp nañu boo amee bor ci koor nga daal di koy gaaw a fay ndax yàlla xam nit kañ lay génn àdduna watataa boobu akuk toftaloom maanaam boo defee koor gi te mën koo tegale bu susaloo moo gën waaye nag susale gi warut lu neexee boo dee fay boo fayee tey boo liggéey nga noppalu lu neexee sax fay moom yàgg nga noppalu lu yàgg loo tàmbaliwaat loolu moom dañoo sopp rek tegale gi wa yustahab bu def na sopp sow mu yow mi xarafata woor bi su arafa li xëyril xaaji ñeen kudul aji aji nee na bu fekkee ne bis arafa fukk mi aj sopp nañ woor ko waaye boo dee aj nag moom dañu bañ boo wooree ñëw doole ba la nga ci def boo ko defee noonu wa sawmu xashri jul xijjati ak woor fukki fan yi jul xijja bu woor tabaski woor sopp nañ bu teroo rek nga tàmbalee woor ba ñu sugal tabaski mu juróom-ñeent yi kon juróom-ñeent yi rek la woor su ko defee nag fukki boobu bi tabaski la kenn ko woor araam naa woor hmm. waaye juróom-ñeenteel yooyu liñ ci gën a sopp mooy yow mu tarwiya mooy bisu juróom-ñeenteel ak ba ci topp yow mu arafat yooyu ñaar lañ ci gën a sopp waaye nga woor juróom-ñeent yëpp nag moo gën wal muharram ak woor lépp itam xarit wa rajabin ak woor lépp rajab wa shahbaan ak woor lépp baraxlu maanaam soo ko mënee yett weer yow dañoo sopp nga woor leen lépp lépp tam xarit ak rajab mais yow njëkk baraxlu ak baraxlu ci boppam wa salaasati ayaamin ak woor ñetti fan min kulli shahrin ci wépp weer maanaam sopp nañu woor wu ne nga woor ca ñetti fan ñetti fan ñu woor rek mu baax wa kariha sib na malikum malik am takkoona ci ñu nekk albida di yooyu leer yu ay guddi li firaari yi dawam min a taxdidi ci limité limité mooy ràññeele yéen a malik moom daa sib nga ñetti fan yi ñuy ci weer wu mooy fukk ak ñett fukk ak juróom ñett bis yi nga xam ne seen guddi day leer day bañ nga jagleel ko yooyu ndax nee na day bañ nga limité ko da nga doon ñett rek da nga bëgg ñett yooyu def rek te bañ koo jagleel ñetti fan ñooñu dong wa kasaalika ni kariha sib na siyaama sittatin woor juróom benn min shawaalin ci korite maxaafata al yulxiqaha ngir ragal mu yégal ko al jaaxilu aji réer bi ramadaan ci ramadaan juróom benn fan yi nga xam ne dañuy wax ne boo ko wooree ci weeru korite day mel ne woor nga sa jamono yëpp ak ne boo ko defee day mel ne set nga ci bàkkaar ni bala sunday juree loolu moo tax ñu bari fonk ko woor waaye Maalik moom dafa sib ko woor ndax day ragal ki nga xam ne xamut bëgg ko boole ci weeru koor waaye nee ñu nag li gën a wóor li gën li a baax mooy nga woor ko rek ndax liñ ci wax moom ak liñ ci doge daal ak ñu baax ñu daal ñu koo woor moo tax ñu bëgg rek nga bañ a topp sib googu rek te woor ko. kooku def na yukrahu def na si dawqul milhi mos xorom li yi ñeel aji woor fa in faxala dem def na zalika loolee wa majjahoo te muy àbbi ko wala muy silte eggut ilaa xalq yi jëm ca baatam ba min ci moom shay'un dara falaasio di dara xale di ko war sib nañu boo wooree ngay mos ba xam lii saf na xorom wala déet mbaa saf na suukar mbaa déet di ki togg ngay mos ba xam wala booy tàngal kafe mbaa attaaya ci bëccëg bi mu jëm ngoon ngay mos ba xam saf na suukaram déet yi mel noonu nga war ba noppi di ko def tàmmuñ ko ndax mën naa rëcc jàll waaye na soo ko defee te yàbbi ko set dara dara jàllu ca kon dara la ca war maanaam kon bu wàññi dara wa muqaddamaatul jimaa yooyu jiital njëkk booloo makruhat nañu la li saa yi mu ngeen aji woor kal wal jësati ak laal ak làmb aw yaram wal jësati ak laal aw yaram wal nazari ak xool ga al mustadaami ba di bu ñu saxal wal mulaaxabati ak foxante in xulumat ndeem xaweef na asalaamatu mucc ba min zaalika ci loolee nee na woor bu fekkee wóor na ko ni moom bu laalanteeg ko muy séel mbaa mu fóonanteeg moom mbaa mu xoolanteeg moom xool bu yàgg itam ba sax fóonanteeg moom lu tax dara génn ci wul xam na ko ci boppam ne dara du génn du mës su boobaa dañuy sib kese rek yem ci mu def loolu kon ni ki fóonante gi mbaa laalante gi mbaa xoolante googu mbaa fóonante lay doon wa bu fekkee wóoru nag xaruma kon kon araam xale yi ci moom daalika loolee su fekkee wóolu bopp na ci bu defee dara bu ko defee dara rek génn ndéet nag waaw su boobaa araam na muy def kenn ci yooyu laakin ni fa waaye moom in am saa ndéem génne ni masiw mun saalik ngir loolu faxaali war na ko aw fay faqat doom wa in am naa ndéem génne ni man yu nag faxaali war na ko aw xadaawu fay wal kafaaratu ak kafaara waaw neen yooyu wax nag ki wax ko ki wax ne ko yow wóoru la boo xam ne rek na génn ndéet bu ko def mu dëgër bopp def ko su fekkee mag yu rek la génne kon fay rek moo ko cay war waaye su fekkee mën yu mu génn moom yaar yëpp lay boole day fay ba noppi war a kafaara boole ci wa ramadaana taxaw ramadaan mustahab lu ñu sopp la mu raxabun te lu ñu xemem loola fii moom te xaala wax na rasulullah yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne man xaama ko taxaw ramadaana war ramadaan imaanan ngir gëm waxtisaaban ak ngir sàkku tuyaaba xufira kon jégaleef la xooñal ko maa taqaddama la jiitu min dambihi ci bakkaaram nee na naafile yi def sopp nañ ko lool te bëgg nga farlu ci guddi gu ne nga fexe ba def ko ndax li hadis boobu wax ne koo xam ne naafila nga weeru koor wi ngir gëm yàlla ak sàkku tuyaaba yàlla yàlla baal la la nga jotoon def ci bakkaar wa yustahab bu def na sopp al infiraadu wéetoo bisi ci taxaw weeru koor wi mooy ci naafila weeru koor in lam tuxattal dem def lu yoqal maanaam dem def lu wéetal al bi jàkka ya wallahu yàlla nag alam moo xam dëgg-dëgg nee na naa fi lu weeru koor moom bu fekkee ne boo demul jàkka ja du too nit ñi dem kon nga borowoo dong def ko moo gën dem ci mbooloo ma waaye nag bu fekkee ne ngay kilifa boo demee jàkka ji nit ñi dem boo demul nit ñi kenn nit ñi daal di sawara di dem su boobaa kon demal jàkka ja bu dul loolu rek moom bu fekkee ne borogo du la tax a tayeel waaw ah, loolu ñu wax du tax du too nit ñi moom dem waaw ah, su boobaa nga bëri def ko moo gën dem ci mbooloo ma